am na nag ñu bañoon boobu am mooy waa nguur gi dem nañu sax ba préfet Diourbel jël ab bataaxal bind ko ne benn nit warul am benn manifestation si njaare xam nga loolu doy waar a ngi ñu ne nag ñoom nañu def ndànk nañu tey d'abord administration bi waruñ fi nekkal ak parti nguur gi lañ fi war a nekkal ak réew mi kon nañu xool bu baax seeni li ñuy bind parce que Sénégal tolloo duñ fu ñu xoqatal ay nit ak di leen tere seen droit loolu kenn du ko nangu su fekkee ne lu jaar yoon la ñun du ñu jàdd yoon waaye nag loo xam ne tegul yoon du ñu ko faale duñ ko respecté moo tax ba ñu ñëwee alkaat yi taxaw naa du ñu dugg ñaata ñaari oto yu topp côté bi nit ñi dañ leen fël romb leen dem seen yoon te loolu mooy yoon parce que ñun tooñuñu wutuñu ay jàmm la ñu dox waaye nag ci fulla ak fayda te ñun nee nañu du ñu xoxatal wax naa ko du benn du ñaar bu ñu yeboo xam ne daal bu yàlla tàgg sànni ci matt moo gën jéem koo fay mënoo ko